waa Sénégal maa ngi tudd Marie Anne Prera jógee si Casamance Ziguinchor ah, macha allah way kontaan naa sama xol sedd na euh, parce que ñëw nañ pour màggal jour ji buñ tax ñu jógee depuis Ziguinchor jusqu'à fii sori na après waaw soriwul. naa gis naa sama mbokk CVAV yi am ñu ma ci xam en plus xaw ma ba ma xam à cause de GMJ bi moo tax ba xam leen tamit en plus waaja waa Kolda xaw ma ban année lay doon mais ñu ngi koy wadjal bu baax te inshallah bu soobee yàlla bu fekkee maa ngi dund mom sama tang ba Kolda wa waay merci beaucoup. bonjour maa ngi tudd clément Sagna responsable CVAV au niveau de Dakar dañaa teewoon fi GMJ moi nak je sais à Ziguinchor Jésus Christ a ñu ko jaral vu que JMJ c'est pour les jeunes c'est pour tout le monde c'est la famille kontaan nañ ci torop luñ fi teewee servir nañ le Christ dafa seene wasaare wa baatam fépp ci àddina ndar géej moom macha allah lu ñuy wax ci teraanga si ñoom gis nañ ko kontaan nañ top vie accueillante la. lekk naa ba suur naan naa ba màndi naaj bi dafa tàng. en tout ñu ngi waajal JMJ Kolda allah danañ fa teew.